As nuyu nañ la ziar nañ la. waaw ñu leen di leen fay. Mhm. di sant. waaw ñu ngi dalal nag fii ci fii jaxaaw mhm. koñu artiste la. Mhm. dëgg la koñu footballeur la. dëgg la waaye tamit koñu borom baax la. ndeysaan koñ bu baax la. am nañ fi Adja Ami Bala Tall. dëgg la. am nañ fi. suñu bàyyi Modou Lettieri. ndeysaan. ñooñu ay référence lañu. dëgg la. am nañ fi ñeneen ak ñeneen. Mhm. am nañ fi Paa Soppi. Mhm. am nañ fi Bouba Jaxaw. am nañ fi Yamagor Seck. laa dëkk mhm. mais sax laa yoroon na Jaxaw. sama yaay fi la nekk Ndiadege Seck mooy sama maam. waaw ndeysaan loolu présentation bi leer na xanaa nga jox Pape Ablaye Ba Pape Ablaye mi nga xamante ni mu def présentation Pape Ablaye Kouyaté waaw. Pape Laye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ñu ngi dalal ci émission bi. waaw émission bi moom lu ma gisee nii lu rafet la quoi. Mm-hmm. ndax koñ moom nga ñëw dajale ñëpp mag ndaw. Mm-hmm. ñëpp ngir reetaan. Mm-hmm. loolu ci ma plaisir beaucoup quoi. waaw ndeysaan beaucoup plaisir. waaw jaajëf kooku ngeen dégg léegi mooy Pape Laye Ba di euh, Pape Laye Kouaté di militaire wu ASC Diakhao le numéro 10 de tous les temps ki ci topp nag moom la ñuy wax Basirou di aussi moom tamit footballeur Bas ñu ngi Euh, Mourou ah bon maa lay fay. yëkkati tuuti sa micro. ah Mourou maa lay fay la di la ziar bu baax. waaw Basirou noo gisee émission bi. ah émission bi noo ko gisee moom ah commencé naa neex moom. Hmm. saa yi moom neexagum na moom xamoon na bu ñu demee ba ni mu fay demee. Hmm. di nuyu waa hmm. moom lu mel ni midi man maa la wax loolu. xam nga loolu tey xam nga bàyyi tey xam nga tey rek nga xam bàyyi dàq histoire doom ay waay ba làkk ma loo xam. yow tey nga xam ne bàyyi dàq histoire doom. comment tu vas. ah mais la marché. yéen <laughs> a marché à la quartier. mais yow la quartier. la quartier. mais la quartier. waaw ah. la quartier xanaa amul sax ay ñoo xam ne dañoo war a marché. non non non non. ne parle pas le wolof tu

comme coordinateur fédéral de sport. Ah oui. Qui est ou bien milieu ou bien excentré. Elle est milieu ah, elle est milieu elle non elle jigéen la. il terrain. moi je parle avec un homme. non moi je ne parle pas avec une fille. je non elle c'est une fille. mais je te dis il. il tu pars en en entraînement. ou bien attaquant ou bien. milieu du Joubin. Ouais, qui très Joubin, bah. Hein? Qui très Joubin. Qui a marqué, qui Le, le 10 buts, le 3 buts. Mas Mounachi Dougal, une but. Non, non, non, non. L'espoir. L'espoir. Non, l'espoir, l'espoir, non, l'espoir. Non, non, non, non, non, l'espoir, c'est pas ça. L'espoir, c'est pas ça. Waaw. Xam nga l'espoir, c'est pas ça. C'est pas ça. Il va te ma ne espoir, c'est pas Mhm. pour créer un forme. sport attends créer un forme. wi hein? créer un attendissement. oui repose bien. oui qu'ils fait un bon sportif. oui. sport. petits enfants moo koy def. oui. moo grand gamin mënu def sport. Mhm. Mhm. sport c'est la tout lépp c'est la famille culture. salaama mi ci tiir. lépp ñëpp a ci xaj effort c'est les boole les nit. non non non pas boole ba pas boole ay nit pas boole ay nit. pourquoi euh, le sport le sport oui le sport. waaw il faut te convaincre. avec tes amis. oui. il faut te convaincre avec tes amis. oui. eh fais lii on attend attend. avec Malta non attends attends mais avec man waaw attends attends anta yow ah waaw ah attends avec man daal tey. oui. Palaay. waaw fais le sport. foot. Mhm. parce que tu es un homme. Oui. tu es un bon footballeur. Hein? par rapport à les gens, il a dit Palay, eh, quand je me fais petit petit ça, non, c'est pas ça. Euh, Mais tu es un bon footballeur. Tu es un bon footballeur. de rêver, tu es un bon, footballeur. Comme lui, Sadio Comme lui, El Diouf. Comme lui, Fadiga. Comme lui, S18. Oui. Reste là, tout ça, c'est des blabla. Blabla, Ok, parle-toi, je t'ai attendu. Non, je t'ai attendu beaucoup. Yo, yo, tu es l'étude. Pourquoi moi je viens étude Tu es l'étude. Pourquoi moi je viens étude Qu'est-ce que ça veut étude Qu'est-ce que ça veut étude Kon boog yow looy def. Qu'est-ce que ça veut kon looy kon yow xam yow aar dafa yaatu aar lay beaucoup lay yaatu. non aar c'est pas étude. <laughs> Ah, il est éthique Non, non, ah, c'est pas Non, c'est pas Non, c'est pas éthique. Art, art, Non, c'est pas éthique. Art, dafa art, c'est beaucoup. Fépp art. Gis nga l'art. L'art. Waaw. Il convainc. Mm -hmm. Les quelques éléments. Oui. Pour vous en art. Mm -hmm. Entendre en art. Mm -hmm. Mais le veut. waaw jaajëf euh, dégg lu ngeen ñaa ñooñu seen confrontation bi euh, jaar na yoon ci diggante pablaay ak ki nga xamante ne mooy As mais pareeguñu nag ndax jigéen ñaa ngi fii tout tànk yaa ngi fii mais dafa benn histoire boo xamante ni euh, Pape Laye mii daf ko dund ak benn copine am moom yàlla dafa dogal ni nee na bëggul gel bu dégg français pablaay ñu ngi lay ñaan nga mayuñ ci lool As jox ko micro bi. <laughs> waaw mais Pape. waaw waaw mais yow sa digganteeg sa copine bi naka demee nu mu noonu. kon nii la woon rek. mu jóge waaw ñu daje collège bi. Mhm. ñu daje mu ay man ak Ibou Boroko ñoo àndoon. waaw ak Papa Sarr ak yeneen booy yi quoi. Hmm. ma bàyyi ba ñu jiitu ma ma génn wàññeeku jël numéro booy bi wañ ñëw ba ci kër gi. Hmm. bibe ko booy woo ma. woo ma ma jël mu hmm. man ko vous mu il est <laughs> Oh. Tu as oublié ça Non, qui n'a pas oublié ça. Non, non, non, pas moi, c'est lui. Mm. Il me plaît beaucoup. Non, qui t'a donné numéro ouais, Qui t'a donné numéro Moi, okay. Qui donne mon numéro Les collègues. Waouh. Mon collègue, les collègues, les collègues, les mu fii foofu ko waa ci français <laughs> ne ma uyee les uyee ko ti habité où. moom moo la wax ci habité où. man maa ne ko fii ta habité où. bu <laughs> tàmbalee wax français boo xam ne dama jaaxal ko waaw. waaw waaw. mën na ma ko wax lan la ma waxati <laughs> moo hmm. li lu nga koy waxee ci français sax lu mu tudd rek commencement <laughs> bi rek laa doon maa lay commencement. ban la. di di de. di oh. ami. non ki n'est ami kon. copine. waaw ti ma copine quoi. mooy ko ti ma copine ah. waaw. munu wii mën ko. man la paalaay. munuma na para para munuma na para para <laughs> moi je ne moi moi je ne connais ça ça parce que mais toi paalaay comment tu on dit mousse en français. <laughs> dugal na la de. dugal na la mais non non non non toi la la la la tu l'as sauté. te la non, non, ça. Que les, les gens t'appellent toi, dis ça, mais toi, non, tu le prends. Non, non. Eh, bu ndaw bi ne écoute pas les gens man la écoute le même personnel. mais maintenant. moi j'écoute maintenant moi j'écoute toi. toi tu me parles moi je réponds. toi parle-moi moi je réponds. non ma wax la yow nga réponds. non pa Palaye parle français mais moi je parle français. non tu ne parles pas français yow mënoo parler français. non moi je parle bien français. non non. moi je lu ñuy waxee kaña ci français. kaña yaa ma ko njëkk a posé. mais c'est-à-dire souris. Ginax. non ah. mooy ree. non. Eh. yaa sourire. yaa yaa. sourire xoolal la regarde non ça. Dieu ñun l'a donné deux souris. Ah, ah, yaa souris souris tu parles. Non, de quoi Dieu donnait i toi sourire. Quel Ici à Ya. Non. Ça ce sont les bébés, les bébés, les bébés quoi Non. Non. Mais attends, nak yow jaalu mu ngi sourire de. Hmm. Yow jaalu sourire de. Eh yut. Yow jaalu. Hmm. Sourire à bonne façon. Oui. Mais dama ne dina. Akay ngeen jaalu yéen ñaar ñi. Non, ni Non, dina akay ngeen voilà. non As ces gens-là ne connaissent pas comment on parlait de souris comme moi je le pose des questions mais moi je le moi je t'ai posé quatre ok mais toi mais tu me moi je réponds. mais maman va au marché. oui. alors il achète quoi. maman va va à marché. maman quoi. je te couvre. non maman va au marché il achète quoi. maman va au marché. il achète quoi. Il fait quoi Parce que ton question. Moi, on va amasser. Il achète quoi quoi Je te couvre. Pourquoi on couvrir day dem marché day jëndi. xam nga lu muy jënd nga ko. Ahmed. oui Ahmed Diaw. parce que day am ah, mun na. non. Quand les, femmes, quand les femmes partent au marché, ils achètent des fois des poissons, légumes, des fruits, fruits mango, et... des chemises, des Non, qui n'est pas, non, qui n'est pas l'ujum, l'ujum, qui ah, euh, Non, qui n'a ah, pas. Il a Non, il n'a pas de semis. Des jeunes, des jeunes, euh, un poids de. Semis, semis, semis, non mais Palaay Palaay tooti ma disi ah. nii mooy euh, euh, jàkkaarloo bi ñu doon def ci biir quartier bi Jaxaaw plus précisément fi ñu koy wax ci quartier xodd gi waxtaan la dinañ ko amalaat ci yeneen koñ ci yeneen waxtaan ak Asipro TV n'oubliez paan nag ngeen di appuyé ci cloche bi nga xamante ne mooy cloche de notification bi pour mën a seetaan suñu ay émission à chaque fois jaajëf.